théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose dafay tàmbali ay liggéeyam ci at mii. ñun gëm nañ ni que mënuñu am lu toll nii ñu am ay acteurs culturels yi fi nekk te duñ ci jëriñu donc loolu la ñuy mettre à disposition déjà au grand public mettre à disposition aux acteurs pour que ñu mën a dawal li ñuy def. di fësal aada ak cosaan ñëpp ñëw def programme addu ci lu ñu namba def ngir ñëpp. dañu bëgg woon population bi ni que théâtre bi c'est ouvert pour tout le monde et que surtout les acteurs culturels que mën nañ ci ñëw euh, présenter seeni produits valoriser seeni activités pour que au moins tey culture bi nga xam ne tey ñun gëm nañ ni que mën na changer lu bëri ci population bi ñu mën a atteindre suñuy objectif à travers ça. je acteur comédien. moom ay artiste ni ci wàllum théâtre la ñuy yëngatu. loolu yëpp ci biir fii. fierté la pour tout Sénégalais pour tout acteur nga ñëw par exemple jouer si fii au Grand Théâtre Grand Théâtre suñu titre la donc euh, le choix n'est pas fortuit suñu titre la ñun ñun ñun sénégalais kon ku nekk ñaan nga yàlla ñëw fii produire fii. lu toll ci juróomi xew-xew daanaka ci at mi jot nañ ko tërale mu soxal aada cosaan ñu ko amalee fii ci grand théâtre muy at moo xamante ni daanaka fësal cosaan di koy jaay moom rek moo leen yitteel.